aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu di leen ndokkeel di leen baalu ak di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel dellusiwaat ak yéen ci beneen bunt ci Firi Guent tey ñu ngi leen di ñaan ko am gént ngeen jaar ci yoon yi may sàkku toujours ñu bañ a insisté ci woote bi nii whatsapp nii appel téléphone dama wax ne gént yi du par appel téléphone laa koy tontu ku ñu soxla ci leneen mën nga ñoo woo mais bu dee gént yoon yi muy audio whatsapp envoyé 500 Wave wala Orange Money capturé message bi nga defee transfert bi nga yónnee ñu ko incha allah foofu it ñu ngi ci wax ni suñu compte yi ñu am Instagram la bu ngeen demee Sidi Bouya Top euh, TikTok Sidi Bouya Top Facebook Firi Guent TV officiel YouTube Firi Guent TV officiel li tax mu wax ko mooy ci TikTok. Euh, am nañu jël suñu vidéo ñu ngi defaat même vidéo yi ñu jël lañu reprendre teg ko daal def seen numéro téléphone ci kaw ngeen xam ne compte yooyu di suñu ay compte suñu numéro mu ngi lii mooy bi ngeen minti ñun bu ngeen gisee compte boo xam ne loolu moo ci nekk ñun la bu ko nekkul ngeen xam ne du suñu vidéo voilà euh, du ñun bokk suñu vidéo la waaye numéro bi suñu numéro laa bëgg a wax ndax ki koy def sama vidéo la teg nii jël numéro téléphone def si suuf léegi yow mi koy woo ni ngay jàpp ne man ngay woo te moom ngay woo après ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp ñu xam ne du ñun voilà euh, tey ñu dellu si ak yéen ci gént sëy sëy def naa ci vidéo ñu dellusiwaat ci ndax laaj yi ni ñëwee mooy faral di bari ñu defaat ci beneen vidéo ci leeralaat ay quelques points li ma njëkkee mooy gént sëy maanaam danga gént takk soxna ci góor boo xam ne am nga soxna lay njëkkee ak jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy jigéen bu xam ne euh, euh, ma njëkkee ci jigéen ji nekk ci néegu sëy ëmb nga gént am doom day firi doom bu jigéen ci yow léeg-léeg bu fekkee nag ngeen baal ma yaa ngi jigéen ji ëmb nga gént boog ñi lay takk laa bëgg a wax ëmb nga gént ñu lay takk day firi doom bu jigéen bu fekkee gént nga ëmb ñi lay takk nga gént nekk seet ku ne xam na seet ni muy mel nekk seet bu ñu muur boobaa day firi doom bu góor bu dee dañ lay takk kese nga nekk ci mariage wala yu mel noonu day firi doom bu góor ci charte takk gi bañ a am tëkk bañ am ay way bañ am musique loolu wax naa ne takk fa wut génte mu am loolu baaxul day firi jafe-jafe kon benn euh, ñaareel bi jigéen ji nekk ci néegu sëy yaa ngi sëy am nga doom boo xam ne mat naa sëy nga gént yow ñu lay takk ci biir gént gi day firi sa doom boobu borom bi dina am jëkkër balaa yàgg insha allah euh, bu ñett jigéen ji ëmb danga gént am ku lay takk ci lay takk nekk góor goo xam ne xamoo ko wala mu nekk góor goo xam ne dafa nekk kilifa diine wala mu nekk góor goo xam ne dafa amee ndomb tànk wala responsabilité baax na day firi lan barke day firi xéewal ku nekk ci woon bi di ñëw te balaa yàgg danga ko jot incha allah nga jàpp ne jigéen ji nekk ci néegu say gént ku lay takk xamoo ko baax na li tax mu préciser dafa am ci ñu mu ñëw du baax te fekk nga ëmb da nekk ci néegu say géntu ñu lay takk fekk nga ëmb day firi. te ki lay takk xamoo ko wala mu nekk kilifa diine ko illaa mu nekk nit ko am daraja dinay firi xéewal ak wërsëg yu nekk ci yoon te ñëw ñeent bu dee jamono yooyu da kaa fekk mu feebar moom jigéen ci ëmb day firi wér ci feebar voilà juróom jigéen ji ëmb gént ñu lay takk te ki lay takk faatu na gént nga am nga koo xam-xam nga ne kii diw la waaye génn na àdduna mooy takk baaxul day fii ñàkk baaxul ci gént bi ci topp ma ñëw ci góor joo xam ne am nga soxna ba pare nga gént di am beneen soxna bu dee da nga gént di takk jigéen joo xam ne xamoo ko baaxul gis nga jigéen ji nekk ci néegu say ëmb gént takk ki lay takk nekk góor goo xamul baax na mais bu dee góor baaxul góor daa bokk ci gént yi nu gën a gën a ragal ci moom am nga soxna gént ñu lay may beneen soxna te xamoo jigéen kan baax lan lay firi dañu wax ne day firi gàttu fan ci moom benn wala bu fekkee nga amoon place bu kawee ci ndombal tànk day firi wàcce ci place boobu ñaari yëpp kon benn baaxu ci xëy na bii daa tane bu njëkk ba rek bu dee koo xama nag baax na lool ci gént day firi lan xéewal di firi wërsëg jigéen ji am soxna gént ñu lay may beneen soxna soxna si xam nga ne kii diw la day xew la ak wërsëg xamoo ko baaxul kon ba tey euh, bi ci topp mooy euh, jigéen doo xam ne walla góor goo xam ne am nga soxna nga gént takk soxna beneen soxna ci biir gént gi soxna si faatuwaat takk nga ko mu faatu ci gént gi lan lay firi day firi dugg ci business wala ci commerce boo xam ne doo ci am bénéfice danga ci perte baaxul bu la fekkoon ci projet boo duggee projet bu day échec baaxul ci gént kon voilà euh, voilà jigéen góor goo xam ne da ngaa gént takk soxna soxna si ngay takk xam nga ne kii diwul waaye faatu na dañu di am mbir mu ñëw ca waaye mbir mu du nekk lu baax da nga am dara loo xam ne doo ko jëriñoo ci gàttal kon baaxul góor da ngaa gént takk soxna soo xam ne soxna su doy la soxna su ñaaw jikko la soxna su doyadu la soo xam ne wóor na li ñu wax naan soxna su du jigéen ju baax moom nga gént takk ci biir sëy bi ci ci biir gént gi lan day firi jafe-jafe ak njàqare ak xat-xat yu dooleeku ci sa dund baaxul wax kay euh, góor takk ki nga la sa yaay la sa yaay ji la jur nga gént takk ko soxna ci biir gént baaxul day firi ñàkk mbir mu am njëriñ benn si oto wala sa kër wala la amal njëriñ wala sa place su liggéeykaay yow daal da nga am lu rëy ci yow loo xam ne da ko ñàkk baaxul ci génn mooy gént takk sa waajur bu jigéen wala góor nga gént takk ci ñi nga xam ne dañ laa xaraam sa rakk la bu jigéen sa mag bu jigéen wala koo xam ne voilà ñi la xaraama takk nga xam ne mënuñoo nekk si soxna ñoom nga gént takk si kenn bu dee kooku nga gént loola jamono yi nga koy gént mi ngi dund baaxul day firi yow nit ko xam da ngay dokk mbokk bu dee daa faatu baax nit ku fonk mbokk nga kon muy dépendre ci max muy dund bu dee muy dund baaxul bu dee faatu na baax na ci gént di takk soxna wala di ñi lay takk te lay takk xam nga ne kii diw la baax na ci gént léeg-léeg dina firi taxqiq umniyaat maanaam am ay objectif wala ay mébét wala looy bëgg loolu dana sotti wala nga doon xaar dara loolu danga ko jot ñenn ñi dañ ne dafay firi jëkkër ci ku ko amagul wala soxna ci ku ko am ba pare gént nga di takk koo xam ne xam nga ko voilà gént ki lay takk mooy ki ki ngay bëgg ci jigéen wala góor ki ngay takk mooy ki nga bëgg lan lay firi ci gént diw nga bëgg wala diw moo lay bëgg nga gént mu di la takk dana firi sëy ca waajooja maanaam kooko di la bëgg yàlla dana dogal dana la takk wala kook ngay bëgg yàlla dana dogal danga ko takk ci charte ci charte charte bi mooy nga yëg ni euh, mariage mi ngi am walla takk gaa ngi am amul benn musique amul benn tëgg amul benn woy amul dara kon bu ci amee contraire li ma la waxoon la baaxul diggante voilà jigéen ji nga xam ne amul jëkkër nga gént am jëkkër waaye ki lay takk góor la koo xam ne am na soxna ba pare moo nga gént mu lay takk baaxul gént baaxul day firi mébét yoo xam ne du sotti maanaam di bëgg dara wala yooyu doo du sotti ñenn ñi day firi ay coono kon jigéen gént ñi lay takk te ki lay takk di ko am soxna baaxul ci gént voilà ñi ci des nag voilà beneen bi ci des mooy jigéen joo xam ne amul soxna nga gént ki lay takk xamoo ko surtout muy répété wu gént ko lay takk te xamoo ko dañu wax ne xadis nafs la maanaam da ngay bëri looy xalaat looy xalaat boroom kër maanaam nga yàkkamte am jëkkër nekk chaque jour di ci xalaat man kañ lay am jëkkër su ma doon am jëkkër tey nangam ni lay def nga nekk loolu nekk sa bopp danay faral di ñëw ci sa gént nga gént ñu takk te ki lay takk xamoo ko loolu benn wax ne beneen bi dañuy wax ne bu dul loolu day firi njàqare kon bu ñu mën a euh, ci gént voilà euh, euh, gént ki takk xamoo ko ba pare la ci gën a doy waar mooy mu nekk koo xam ne dafa feebar waaw ki lay takk xamoo ne kii diw la xamoo ko ba pare yow nga feebar laa bëgg wax nga gént ki lay takk xamoo ko ba pare jamono yi ngay gént gént gi dalaa fekk nga feebar loolu laa bëgg wax ci biir wax ji voilà euh, baaxul ci gént day firi jafe-jafe wala xat-xat baaxul da gént ñi takk la bin la takkee yënga ne takk ci biir gént gi takk na la ci divorce am ci biir gént gi takk na la ci takk gi sëy bi tas ci biir gént gi baaxul day firi tàmbali mbir moo xam ne du àgg kon lii lañ leen indiloon tey ci lenn ci parti ci gént di sëy gént sëy jëkkër wala gént takk soxna ala kulli xaal ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ko am laaj ngeen jaar ci yoon yi ma zalika ala bi azim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu